aousubillahi min asheytaani irajim bismillahi irahmaniirahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa moolana mohammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi dawi ridwan wa tamkin wa TV ngi leen di nuyu bu baax di leen sant bu baax di leen ñaanal suñu borom jëmale télé ba fi ñuy dégg télé yëpp ci àdduna ñu dégg leen fa ñu ngi bég bu baax ci initiative bi ngeen jël ci bisu ren bi di bisub Mbàkke Kajoor gi tànn mi Sëñ Baara yi di leen di leen di leen tuddee di leen tuddee di leen tuddee di leen tuddee di waxtaane seeni seeni seeni seeni mbaax ak seeni seeni seeni jëf yu rafet ci àdduna muy lu baax ñu ngi ciy bég bu baax di ko rafetlu tey nag ngeen jël jëmm joo xam ne jenn kenn la ci doomi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara yi di Cheikh Abdoul Karim ñu Cheikh Mouhamadou Lamine bëgg ko waxtaane ci eh, tele bi Cheikh Abdoul Karim nag eh, li ma ci mën a wax eh, bari na bariwut ndax xëy na bi mu làqoo yàgg na ndax boobu waxuma dara waaye suñu wéy jur rek boobu ay tànk lañ ay ndaw lañ waaye nag dinañ nangoo ci mag ñi ñu di wax ñu ñuy xam lu ñu mën a nettaliwaat sëñ Abdou Karim mooy doy na sëkk ñu ne mooy doomu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Cheikh Mouhamadou Lamine Baara seexul Khadim kon sëtub Sëriñ Tuubaa la xàqan bokk ci askan wi ñëpp xam muy askanu maam Maaram moom Balla Aysa ak askanu bu Mbusoobe soxna Jaara léegi euh, mu bokk foofu bokk gu wér doonoon ñetteelu doomu sëñ Baara nga xam ne njaboot sëñ Baara sëñ Abdou sëñ Abdou Aziz Baara ak sëñ Modou Baara may taaw ba rek ñoo ko ci mag toppoon ci ñoom mm, bu dee ci wàllu wayjuru mu jigéen wayjuru mu jigéen mu ngi tudd soxna Zeynabu Aydara di doomu Chérif Moulay Nasser Aydara mu Moulay Nasser Aydara di Chérif bu jóge woon Maroc daan ñëw Sénégal daan yëngu ci wàllu xam-xam ak wàllu commerce doon sëtu Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ci wàllu wayjur wu góor ak wayjur wu jigéen bi mu ñëwee Sénégal it alaaji Malick la dalaloon mujj na alaaji Malick ko booleeg sëriñ bi sëriñ bi boolewaat ko sëñ Mbàkke Buso waaw kon euh, sëñ Abdou Karim mën nañ ne ci surafaa yi la bokk shérif la jaare ko ci Ahmad Tidiane bi ci des mooy wajuru mu jigéen soxna Zeyn bu Aydara jarbaatu sëriñ Tuubaa la ndax euh, ku ñuy wax soxna Kumba Tay Aïchatu Mbàkke ñu gën koo xam ci Kumba Tay ba Mbàkke mooy waajuram soxna Kumba Tay ba Mbàkke moom mi ngi bokk ak waajuru wu góor gu jigéen ñi may bëgg lim muy sëriñ Cheikh Coro Mbàkke di maami sëñ Siidi Ndar ak sëñ Amar Fall nekkoon Ndar ak sëñ Balla Coro mi nekkoon Jurbel Njaareem ak euh, soxna Xari Mbàkke soxna Xari Mbàkke mooy way juru moo moom lañ joxoon sëñ Mbàkke Buso mu am ci ñoo ñi may bëgg lim muy sëriñ Modou Buso sëriñ Asan Buso bu Gédé ma des màkk ak soxna Faati Buso mi yaayu soxna Mbenn Baara mu sëñ Fàllu ak euh, sëñ Modou Buso mi waajuru ñoom sëñ Maamu Buso imaam Tuubaa léegi kon muy muy mbokkum ñëpp ba noppi soxna Kumba Tayba moom bokk ak uh, sëriñ bi benn jur muy sëñ Mor Anta Sali meññ ko moom ba tey mu bokkaat foofu ci maam maam Mbalay sa maam Maaram uh, foofu la bokk muy judd bu rafet boo toppee ca wayjur wu jigéen wër uh, soxna Seynabu Aydara soxna Kumba Tayba coromaaro sox coromaaro su ku ne xam nga ko ma nga sëtoo ca ma sëtoo ci ci ci ci ci waalo ci barak waalo muy barak Kulimbaaba euh, léegi léegi sëñ Abdou Karim mi ngi ganee jamono 1906 euh, ci Mbàkke Kajoor 1906 la ganee jamono ci Mbàkke Kajoor euh, Sëriñ Tuubaa moo jox sëñ Baara turam jox ko ko ne ko tuddee ko Abdul Karim tudde ko Abdul Karim nga xam ne sëñ bi dana ko tuddee ko sama bopp tuddee ma ko man man Serigne Touba naa la jox tur wi ñuy wax Abdou Karim ci sama tur la bokk mu tuddee ko ko mu nekk fa doonoon doonoon ku kéemaane bi mu gënee jamono bari ay kéemaan yu feeñ ci moom ndax doomi sëñ Baara rek doy na ak sërif gi mu gi mu gi mu rax nga xam ne da koo nàmp yéeme lool ci ndawam yéeme lool ci ndawam. ci noonu ci la ko ci bi mu mate jàng ci la ko sëriñ baara dalal dalal jàng ci ci ci loxo boppam moo ko dalal jàng dalal ko baax ca siin ca Mbàkke Kajoor eh, ginnaaw bi la ko jox sëñ mut jaara gi mu ne Mbàkke njokk bu mu fa jógee ci la ko yóbbu kër sëñ kër sëñ Mour sëñ Mor Abdou Sey ca kër Mor Abdou ca ginnaaw Njaañ fa la jàng alxuraan ba mokkal ko bu bind fa kaamilam ba jàng fa xam-xam lu bari ci xam-xam mujj ne mu gëstuwaat ci ci borom xam-xam yu bari ci ci ci ci ci réew mi eh, bari na fu mu jaar. léegi léegi moom Cheikh Abdou Karim euh, bi mu fa jógee daana tukki daana tukki daana tukki ci ci réew yi ci réew yi muy muy diggante diggante Mali ak Côte d'Ivoire ak ak ak réew yi mel ne réew Afrique yooyu daana ko tukki waaw bi mu tukki yooyu bi mu ci jógee nag ci la ñëw samp kër Mbacke Njokk nga xam ne Mbacke Njokk dëkku bu sëñ Baara boobu moom moo ko doon woon nga xam ne euh, fala sañcoon defoon fa ay tool di bay di di di di di yor daaraam di di def li sëriñ baaxoo di def nekk fa nekk fa nekk fa nekk fa waaw di liggéeyal sëriñ tubaa moom sëñ sëñ liggéeyal sëñ Baara sëñ Abdou Karim ku nangu kilifteef la woon ku juboon ak juboon ay magab la woon nangu leen dégg leen doonoon taalibe njëkk ci sëñ Modou Baara xafiis ba ci sëñ Abdou Aziz Baara mii moo doonoon jëwriñu sëñ Abdou Aziz Baara lépp sëñ Abdou Aziz Baara moo ko daan taxaw ba am na ngërëmam ci lu wér wér wér dafa bëggoon sëñ Abdou Aziz Baara yebalewu ko woon ak dara dara dara sëñ Abdou Aziz fonk ko lool ndax fi mu ko teg ak liñ bokk ak ak ak ak seeni mbir ni mu ni mu dégg woon euh, sëñ Abdou Karim doonoon jëmm joo xam ne it ku bari baatin la woon ku defi kéemaan la def na ay xarbaax waaye loolu duma ci xóot ndax euh, damay yamal yam yam yam yam rek ci jikko yi maanaam ku lewet la woon ku woyef la woon ku tabe la woon ku ku jaboote la woon ku ku ku bëggoon bëggoon bëggoon bëggoon taalibi Sëñ Tuubaa la woon ku bëggoon mbokk la woon ku mënoon a uuf njaboot la woon ku jaboote ñëpp la woon waaw si moom Cheikh Abdou Karim bari na bari na yu mu ci mën a wax yu bari bari waaye temps bi ak ni mu demee nii ndax waxtaan wi ni mu ñu duñ ci mën a xotal bu baax a baax waaye daal xam naa ne moom am na lu ma mën a nettali ci ay kiimaan lu lu lu gàtt rek. ñaari yëf yoo xam ne xew na ci ci ci njaarim ndax tawatoon na tawat ju metti joo xam ne indi woon nañ ko ci maamam kër sëñ la Coro xam nga sëriñ Tubaa ci boppam nee na nee na nee na li tax mu bàyyi woon bind saafara ak leneen lu dul bind xasida tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam def fu mu yëkkati xalimaam rek yonent bi ree mujj na mu mu far yam ci di tagg yonent bi sallallahu waaye wax nañ ne Cheikh Abdou Karim mm, demoon na ba faatu ci njaarim sëñ Balla Coro ñëw indil ko sëñ Tuubaa wax ko ko keroog sëñ Tuubaa bind na saafara jàmbal ko ci loxo boppam jox ko mu naan ko ci la ci la ci la ci la dekkee te boobu juróom-ñetti at la am wax nañ ne sëñ bi nee na lii de mos naa ko defal Ibra Faal bu may liggéeyal ba faatu ci àll bi foofu aw na fekk sëñ Abdou Karim kon ginnaaw gi mën nañ ne sëñ Abdou Karim Baara képp mu am mbindum sëñ Tuubaa saafara jëfandikoo ko kon loolu loolu jagle la jagle la waaw ku ku bari baatin la woon waaw sëñ Abdou Karim Ceebo lañ ko daan wooye dëkk yi ci njàmbur bari na ci dëkk yoo xam ne bu mësaana laaw laaju laaji jiwu rek dañuy xam ne day taw fu mu laaji jiwu ba dem rek day taw mas nañ maa nettali ci ci cuuruur magi cuuruur yi am na ñu ma ci masa a nettali ne mas na mas naa yàgg ndakaaru lool ñu ñu def ay ñu ñu nekk ci seeni tool rek xaw xam naa xelu matadik doomu aadama jàppaleen ba ñu fàtte ruuj ay toolam bi mu ñëwee ndakaaru la ne ruuj da ngeen ruuj ba noppi ñu naa mu ne leen kon wàcc leen ndox mi ñu ne ko am ah, Mbàkke ñoo ngi tuub ci lañ dem ru ruujal ko ay toolam yooyu ci Mbàkke njokk muy toolu gor bañ ko ruujee ba mu yegg keroog wax nañ ne maafe ndawal maafe ay xar la rey defal leen ko maafe wax nañ ne maafe ndawal la leen toggal waaye bi ñu añee waxtu cinq heures six heures dana leen ku bañ a tawte ku bañ a tawte na nga waaxu dëgg tànk yu dëgër waaye nee na ñi doon ñi doon nekkoon ci yoon wi nga xam ne dañoon yeexantaloog di dox yeneen yi teg demen dañoo tawte ba tooy yu demee noonu daana ko def yu kéemaane kéemaane kéemaane kéemaane nga xam ne xar baax yi suñ baar yi da cee yen woon ba doyal sëkk sëkk sëkk kéemaane la woon ku yéeme la woon wax nañ ni daawut lakk daawut lakk ci safara waaw dereti sérif jooju mu yoroon dafa wérul ci moom nee nañ daawut lakk daana jël ay di ko def ci sawara te daawut lakk yu demee noonu maanaam ku kéemaane la sëñ Abdou Karim jëmm la woon joo xam ne xar baax ya ak may ya ak baatin ba moo ko moo moo ne ci moom mu donn bàyyam Cheikh Mouhamadou Lamine ba munta yàgg ci kaw suuf ñu baax ñoo demee noonu yoon yor yenn yu diis yooyu euh, du ñu yàgg ci kaw suuf boo xoolee ñii ñu ko tuddee ci guy mbind dañoo yenn ci mbiram ba mu fees del mboolem kuñ ko tudde rek am na loo yor loo yenut loo xam ne ci ci ci jagle boppam la moom moom Cheikh Abdoul Karim mi ngi wàcc liggéey nag Ndakaaru 1970 ñi ne 1971 waaye 1970 ji moo gën a wér ndax Euh, gis naa ci guy mbind ñu ne seeni doom ci année boobu lañ gane jamono 1970 te moo dëppoog nelaw Cheikh Cheikh Abdoul Karim euh, bi mu nelawee ñi ngi ko jëlee Ndakaaru la nelawee Padois ñu jëlee ko indi ko tuubaa biñ ko indee Touba euh, sëñ Abdou Khader Mbacke moo ko jullee ñu denc ko ci wetu baayam Cheikh Mouhamadou Lamine Baara bis biñ koy denc it wax nañ ne ndox mu bari wàcc na ca robba biñ doon gas bàmmeel bi sax ndox mi da doon da doon da doon kii da da doon kii ci ba ci bàmmeel bi sëñ Abdou Khader ko jullee sëñ Abou Madiana seede na ko seede yu rëy keroog sëñ Abdou Aziz Baara seede na ko seede yu rëy keroog waaw maanaam wax na ne wax na ne sëñ Abu Madiyaan wax na ci rob naa ne ñun ñu bokkal sëñ Baara yëpp mooy sunub sang waaye mosuñu ko woon ab taali ak taalibi rek lañ lañ ab taalibi rek la musa doxal ci ñun ñëpp xàmmewul ko ko mag ak ku mag ñëpp da leen a jàppe woon sëñ sëñ Baara kon sëñ Abdou Karim ab taalibi la ab murit saadix la ab taalibi la ab saadix la ku ku murite la woon ku fonk sëriñ Tubaa la woon yamale wuloon ak sëñ Tubaa dara dara ab taalibi taalibi bu wér la woon waaw ci lañ ko de jébbal boroomam euh, li xew xew Mm, booba nag uh, yàlla def na njabootam gi ñëpp ay ndaw lañ uh, sëñ Cheikh Bara Karim mi nga xam ne mooy taawam bu góor ci góor ñi am na sax ay mag yu jigéen waaye booba fukki at ak ñaar ci lay war a toll fukki at ak ñaar du sori foofu booba mi ngi ci daara ji di jàng moo ko njëkk a toggal xalifa booba 1970 ba léegi nii moo ne ci xalif gi jiite mbind di di di di ilimaani guy mbind ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ko yàgg yàgg yàgg yàgg jiite gi ànd kook ay rakam suñ Cheikh Marème ak suñ Xaadim ci wàllu soxna yi soxna maam Awa Mbacke soxna Ndey Mbacke ñoo ñëpp bi sëñ bi dem fi la leen baax soxna maam Awa sëñ soxna Ndey sox soxna Mbène soxna mm, Bintu euh, soxna soxna maam ami soxna faati mbàkke euh, soxna maam buso soxna soxna euh, jàmmi ñoom ñëpp fii la leen sëñ Abdou Karim mu ñuy njabootam gi nekk fii ñenn ñi jiitu ji nañ waaw ñi fi nekk nag yàlla nañ fi suñu boroom yàggal lool lool lool lool lool ñu ta ta ñu dese barke bi téye ko ba ca kanam ñu topp seen ginnaaw wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñi xam ne yéen a baaxoo ànd ak seen bii